bagul billet lanu dala ñaan dimas dem julli ibu saxo altine la dem julli ibu saxo di ñaanal di ñaanal bilaay booba xaw man sa na ci am passu mak ma tim di ñaanal mawda malik bay joy woor na ñom na dama ñaan ñaan go nga xamantene ni ñaan ba xamni man ñaan na ci sama xol altine talaata Allah alxames aljuma samedi dimanche ma dem Tiwaawan ñu yobbu suko Maodo Maodo si Maodo Serigne bay biñu yobbu suko si ba pare man ak vie ndaw ñu dem euh, si sa turandoo Seydi aj malik ma dugg toog fi rawdu Seydi aj malik parce yonent bi yow la njëkk ñaala ñaanal ñaanal luma la sama bop lay ñaala ma ñaanal la ñaan go nga xamante ni yalla rek la ko sédel vie ndaw ngi tok bima gesso dama ni vie ndaw yalla la yalla yok yow vie ndaw suñu ñëw bi daal yàlla bu mu niil génn dugg ci alaaji abdu wëlbati ko aw ci boor bi pour dem ci sëñ Babacar di ñaanal Maodo Malick dem tiim sëñ sëñ Babacar ñaanal Maodo Malick ñaanal sama bopp ñaanal jullit yëpp dugg ci sëñ toog ñaanal la encore maag vie ndaw ñaan googu yegsi na te yal na gën a yegsi ñaan gi yegsi na yal na gën a yegsi dimanche la euh, altine talaata àllarba ñu nga wax ma biye màkka vie nga xëy ñu yokk ko yóbbu ko feneen kon boobu ñaan yàlla bu mu niin sa ba ca xalxuus la sa yaay jël liggéey ca waañu soxna umu wa mu yaa yaa yaa umu juuf liggéey ko ca waañu soxna umu wa wallaahi be dogoma ca betuwaa xam nga ni du niil sunu màkka ji nag yàlla na sa ubbeeku baasu màkka bi nga nu jox yàlla na la jig yàlla na mel ni ndoxum galaas te dugg ci ñun waaye te luñ fa jëlee yàlla nañ ko bokk jërëjëf fa institution mu ko bay yow ñii ñëpp yow la ñu àndal bu daggul dina ñëw léppay ñëw bu soobee yàlla sa liggéeyum ndey ak barke baay ak xol li nga defal nit ñi ci sa lamin yàlla dina la ko fay Maodo boo tëddee nelawal te waaw boo tëddee nelawal ba yàlla di jàmbaari Seydi El Hadji Malick moo daan wéy nii Seydina Mouhamed sopp Serigne Babacar jógal taxaw jógal taxaw ku ci sopp Serigne Fallou Mbacké jógal taxaw jógal taxaw ku jugu taxaw yow maa xiyam doo fa taxaw bay mbay yàlla gërëm na la mbay yoon nen gërëm na la ndax yaa yoon càmmi réew mi càmmi gur ak bu diine jaabu nu sàggan dafa ci mbay bu nu sàggan lii ku ne neexul bilaay da la cee bokkul عند الله جلالا عند الله جلالا إن الرسول لا يقصب سيدنا محمد رسول الله يا قبل غد وكل يا Mustafa ku sopp sëñ Fallilu wa billanini wa basinadil ya rabbana bil Mustafa ku sopp sëñ Fallu wa billani wa basinadil ya rabbana bi Cheikh Bilay wa Cheikh Ibrahima Qillulay ya rabbana bi Cheikh Abdullah Abdullah ku sopp Cheikh Fafa bu sëriñ Cheikh Aliou Mbacké lam yakun ya rabbana bi Cheikh Abdoulaye Laat ku sopp sëriñ Saliou sunu waaja lam yakun ya laat àdduna ngi jooy ku baax ka dem na sëriñ Saliou sunu waaja làqu na dëglul ma wax la ba sëriñ Saliou waaje wuy ji boroomam sëriñ Saaliw ba mu tawatee ca Tuuba mu yénnee Cees xolu sa waaja sa baay ba sëriñ Saaliw Ture mu ñëw Tuuba sëriñ Saaliw ba mu tawatee ca Tuuba mu yénnee Cees xolu sa waaja sa xarit ba sa baay ba sëriñ Saaliw Ture mu ñëw Tuuba am it boo xam ne kenn mën da gis sëriñ bi ak sëriñ Saliou Touré ndeke boobu sëriñ Saliou Mbacké nar na joote ajuma ci fajar la sëriñ Saliou dem ajjana laata muy dem wax na ay dénkaane ma xam ca tuuti keroog ma nga naan sëriñ Saliou Touré bi jot naa ndogal bi agsi naa yàlla woona ma damay dem ajjana ñu jékki-jékki fajar xar sëriñ Saliou sëriñ Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne ni Cheikh Saliou Touré ñaata la am ci àdduna keroog la ko Serigne Saliou Touré wax ay atam Serigne Saliou Mbacké jubli xibla ga ni ko Saliou Touré man Serigne Saliou Mbacké musuma tooñ sa borom musuma tooñ sa morom wàcc naa wàcc naa wàcce naa yi di ko wax moo ma njëkk a génnal clip te xaw bi mu koy def Fadbara Fall mii moo booleeg moom te xaw ma dem na ba clip bi génn muy daw ta Maodo xaw ma maa ko ñëw nuyu ko ni ko Maodo na nga def ma sa booy ma ne ko man la xabaan maye xabaan ma ne ko wax man la daa am loo xam nag ñun as soo ko taree da nga koy tëral te ñu waxoon nañ ko fii Maodo lii ñu def fii ñun na bien yi soo demoon ba maire yi woote ko ñu def ko presse bépp jël ko ñuy xabbaa na ngay jangal mawda ba ñu mu àgg cheikh sidi muxtaar su ma lu tax ma ne ko lii tax école ba la yend ku ma gis gis ma maak maas ak mbay ñu yend fa ngir yalla ak jëmmi mawda malik yalla may ko ndam ta am nga ndam ndam ndam ndam xamul luy ndam après élection li moy ndam te cheikhul xadim mawda maa ngi wàcc sëriñ salu ma yaakaar fa nga jëm kenn du la fa tee àgg. nga fa àgg bu wér man mus guleet tey ma wax ñëpp jàng lañ ma xamee dem. waaye ni ma wax loolu maa ko xam. maasan woo léegi ni ma réunion bi yëgoo ko ma ne ko message bi ne ko ma koo fàtte ma daw ñëw ci moom moom su dama ne su dama ba place de France woo ñu dina ñëw toog xuus si ndox mi toog ak moom ba ñépp xam ni bañu ma ñu ne xabaan na ngay politique man bañu ko dañ ko wax. xabaan li mu wax li ko dal rek moo nu dal démb dafa am ku ma nuyoonteel xàmmeewu ma. mu ne ma waaye li nga sol nag ma ne ko ah tey de lii laa war a sol ndax damaa jàppale si sama leader ndax dañuy wax ne koo xamul noo koy def nam la def a tax te ñun ñii nga xam ne dañuy tagg xam Mohamed dëkk si talamin Maodo mii ni munu def. musunoo gis ku nu ko def kuy juddoo si talamin leader bu ne nag yëngal na fi waaye ku yëngoo ni nga yëngoo di doxale ni ngay doxale moo fi Moussa am moo tax nu doxee nii dama bëgg loolu ñëpp tàcc ko xam ne li may wax dëgg la ndax Maodo boo dul ñëw ci mouvement bi di teew si réunion sax bu tabaski jotee dana lijjanti ba xam foo ne xamul nag fu ñuy jëlee numéro yi xaw ma daf koy luxus xaw ma gomis da koy lijjanti xaw ma da ngay jékki-jékki rek biraan ñaa ne la kar ne la Maodo nee na am nga fi nangam korite gi passé bi may woo maa ngi piir ci deju Serigne Moustapha bi ma wooyee damaa woo kenn ci njabot gi rek ne ko demal ginaar yi ma waroon indi kat da melni mawdo indi nako ko deme ci biran biraan na la ko jox nga dem jëndi ginaar yi loolu nag sax mbaax la nit nak bu lay defal lo meunul sa bop bu ay mbokam tewe ak ay nitam nang ko sante geureum ko te fépp fu mu nek nga gis ko fa nga fekk ko fa mawdo da nga bax merci yene ñepp jam motax jam rek ngay am dano tok Serigne Mbaye ci Mansour doomu Alaaji Mansour Serigne bayam ne mawdo mi ci ñun la bok dama bëgg ni ngeen ko jappale yeen ñepp keroog laa jël engagement ci yow ca kër ba Bassirou Ngom boobu fekk nañ dëkk si talamin waaye engagement bi ma jël lu mu rëy rëy rëy wan nga mën a jël nga engagement bu gën a rëy loolu ci man 16 avril laa jàpp takkusaanu Seydouna Mohamed buntu poste de santé ba si talamin gépp daje fa la ñu añee yaa ko joxe la ñu reere yaa ko joxe boisson yi ñu naan yaa ko joxe paas ba nit ñi paase yaa ko joxe